jàmm ngeen fanaan jàmm ngeen fanaan affaire kilifa gi Sénégal te dëggu ne góor gi loolu laa bëgg a wax tey bëgguma lonk nataali kilifa gi right now léegi nii ok ku ñëw na def boppam nit wala ma lonk nataalam bi so bu kenn ñëw naan ma bul wax si mbiri lii ak nangam ok ku ñëw na def boppam nit wala ma lonk nataalam bi so right now lonk ma nataali kilifa gi bot damay wax si topic bi ok tapote leen vidéo yi mu xéeg gi nga askan bi soo gisee ba tey seen buggu gune gi du wàññeeku jigéeni askan bi ñoo dut wér xànd xeex loolu ak góori askan bi képp koo xam ne even bëgg gune nga nga jàpp si yàlla te faju te génn xeex loolu te xam ne li la dal jaaduwut te xam ne gune yi danañ génn weer la te xam ne yàlla dana la weer te xam ne li nga def dafa am yi nga génn xeex ko buy góor nga it waaye du ngeen koy def askan bi seen bëgg gune gii te yéen ñu bari ñu def leen ko ngeen ñëw di ko ñaawale nit ñi maa si Cheikh Cissé mi nga xam ne gannaaw bu mu waxee ne man maa sëy ma du yeegu ne moo tax ma dof mu ne ba pare mu ñëw ne moom fañ ko juutal woon du yeegu ne tey mu ànd man xeex loolu mu di ma buli man su ko defee pour man ma noppi ak ñeneen ñi waxul ñëpp buñ wax su ko defee nit ñi def loolu continuer di ko def tàppote leen rek bu kenn wax ne bu ma wax ci mbiru kilifa gii ku ko wax ku ne danaa lonk nataalam fi nii may wax rek ci jàmm lonk ma nataalam ku ràng naa féq ma lonk nataalam ay doon kee kum do sa baay kum do sa jëkkat waroon na koo xam moom ci boppam bu yàgg ne fa nit ñi ko xamutee làmbatu ay gune nag booba la xamut ca boppam bu ko man duma ko xam defal sa bopp nii rek fi nii maa ngi jàpp si yàlla di waxta lonku ma nataali paa képp ku bind naan ma bul wax ci paa bi kilifa la ak suma lii la ak suma lii ke laa la danaa lonk nataal ak paa bi wax naa leen ko nag tàppate leen te def seen bopp nii rek ñu wax ci current affaire bi gis nga man current affaire askan bi lu si bëri duma koy bugg a wax sax xam nga lu tax fa may jox stress fa may fàttali li ma dund ci askan bi te li ma dund Israël ba pare fa may jox stress te man kenn maay dem tëddi man kenn ak suma stress duma xam jëkkër ju ma bëggal wala dara ba pare yéen ñu bari ngeen def man noonu instead ngeen ñëw ànd dañu xeex askan bi lépp lu may xeex ci askan bi lu baaxul lu ne ngeen di ñëw di def man noon man tàppate leen rek tam leer leen ne problème ba may wax noonu mooy nooni askan wi problème bu may manti wax bu ne ngeen gis ko te naa fekk te sibbutu nag ñun waa askan bi suñ naa fekk geeg suñ sibbutu gi moo tax problème yi di gën a jolli rek surtout problème yi te tëdd gune bi nit ñuy def nii tapoté leen vidéo bi te séddoo ko rek bu leen ma baax suma noon yi tapoté leen vidéo bi te séddoo ko rek bës leen vidéo bi nii seen xarit yi yëpp ñëw ngeen jox ko vidéo bi te séddoo vidéo bi te bu kenn wax mbiri naan you know wax si li ku ko wax ku ne danaa lonk paa bi nataalam xaw ma ko bu ko ñëw noonu lu muy wut gi nga yéen ñu bëri yéen yi askan bii yéen ñu bëri ngeen di tëddoo ay gune wala lan ba tax du ngeen wax ci mbiri gune yi ñuy tëddoo hmm, ki jam ngeen di tëddoo gune kon képp kuy tëddoo gune nag na pare gune yaa ngi ñëw wax ñu suuli leen mbooleem gune guñ fiy tëddoo képp ku la wax ne boo ko bu ko wax boo ko waxee ma rey la boo ko waxee ma nangam fay fen du la mën a def dara yàlla du ko nangu génnal wax lépp lum la def police danañ ko investiguer ba xam ne moom la dofut ba di la def dara gannaaw bum la tooñee lam la tooñ ba pare nga génn weer ko mu def la dara du ko def génnal wax lam la def feeg yéen a ngi noppi di sutura nit ñi bugg gune ñu feebar ñii nit ñi dinañ continuer di xalak nit ñi fay feebar feebarab cagaak bon ak soxot képp ku bugg gune ku ne fa feebar barki salaatu faatee fa feebar te moom ci fam xam na ko te du nangoo faju du tax du nangoo faju mooy gune yi ñooy nekk di ko seetaan yéen mag ñu bari yéen a ngi seetaan tey te doon nañ leen ba ngeen doxee gune te du ngeen wax te kuy wax na ngeen di ko xas yéen fi ne waxu leen kuy wax du ngeen ko mën a dimbale yow lay waxal yow nga di ko xas moom ca la muy wax moom di dimbale nit ñi tëddoo gune di xas gune yi nga xam ne ñooy xeex lool di dimbale nit ñi koy def di leen sutura di leen megge-megge di xas victime yi nit ñi bugg gune buñ takkul gune gay fa ñuy tëddoo gune fañ bugg gune rek takk o not gunee leen neex rek fay feebar su fekkee du ngeen tapoter vidéo bi parce que maa ngi wax si xolof léegi tey ma commencé di wax si hàngale àdduna si yëpp xam ni ngeen mel ndax yelloohu leen sax ku leen di sutura di wax si xolof ndax yeneen seen ennemi bopp yeneen ennemi askan bi te man askan bi moo tax a jóg faalewuma ku ma bugg ak ku ma mere su fekkee su may wax xolof du ngeen ko faale ndax respectu leen xolof moo tax ngeen di tëdd ak nit ñi xel bi ngeen doto xam ko faalewu leen lool respectu leen lool moo tax di yàq seen doom yi ma wax ko si àngale àdduna si xam leen yeneen ay toskare si àdduna si yéen a dul xamati visa yéen yàqu yéen la àdduna si yëpp di def xaj man it bokk si ak suma doom yi ñun ñëpp dina I don't care doo because su fekkee ne yow faale hoo su ma waxee xolof faale hoo su ma waxee soose ma wax si àngale àdduna si yëpp dégg ko xam ni nga mel protect seen doom yi from yow gannaaw yow doo protect sa doy bopp yi na si protect seen doom yi from yow kon das da turut bon du ma bàyyi di wax de saa wu tëddee gune xamee ci askan bii ngeen ne teg ne maari maraas Tuubaa tëddoo nañ fa ay gune ay fukki fukki fukki fukki gune ustaas ba leen doon jàngal tëddoo ko ba tey gisoo kenn ci kilifay Tuubaa yi ku ja ku ku ngëb rajo wax gisoo kenn ci ci kilifay senegal yu xam fayda yi ku ngëb rajo wax ci loolu gisoo Macky Sall nguuram gi sax dem sa gune ya ngëb rajo wax dimbale gune ya wax ne lii ñaaw na te wax ne lii dana ci def dara te wax ne lii du xamati naqadlu ko daal Macky Sall jabaram mi jigéen sax gisoo ko mu naqadu ko mu naqadlu loolu faalewu ko man mi wax lool di ay yooni yoon di ko wax sax ngeen mi ñëw ngeen di ñëw di ma xas si lool di ma attaque si lool man ne lu tax may wax loolu ay yooni yoon fañ war a sutura Touba te fañ war a sutura loolu waaye gune yu ndaw yi nga xam ne jigéen lañ ay fukki fukki gune lu lu jege ñeen fukki gune ustaas ba tëddoo leen juróomi ati yàlla te gune ga ka ca gën a mag xam fukki at ak ñeent ka ca gën a ndaw xam juróom ñaari at te ustaas ba lu mat juróomi at mu ngi leen di tëddoo gune yaa nga gis leen nii ñu film leen seen waajur yay jooy gune ya di ko wax xamee seen kayiti docteur docteur ba leeral ko yéen Sénégal yépp ngeen waroon a jóg fëgg seen deñ di yuuxu ci loolu di xeex loolu jigéen góor mag ak ndaw ngeen ne yeren ci lool ba tey loolu fu ma xéem ci senegal loolu fa tax suma respect ci Sénégal bu doon teen la fa dem zéro ci gune yooyu ni ngeen xandulee kaa boobu yéen sénégalais yëpp tout seen yoon new ca kaa booba ba tey kaa boobu fa ma xéem ni ngeen ko jëllalee ngeen jëllale kaa booba rek gune ya deseeg seen naqat juróomi xati yàlla ustaas ba di ko tëdd gune yoo xam ne ka ca gën a mag moo xam fukki at ak ñeent ka gën a ndaw xam juróom ñaari xat juróom ati yàlla ustaas ba di ko def ak gune yooyu xalaatal kon gune yooyu ñaata at lañ xamoon ba mu koy tàmbali gune yoo xam ne lu ko manqué ñeen fukki gune bëriwul te gune yooyu ngeen yëg bokkut ak ñi ngeen yëgul gune yu mu doon jàngal mu xam fitu di leen def loolu yéen ustaas yi Gambie ak Sénégal ngeen waroon na ànd fëgg seen ndeng ci lii di yuuxu ci lii lii naqadi leen bu fekkee ne yéen melu leen ni ustaas booba dañ waxante dëgg ngeen ne ni jiwu xorom ba tey man lii fa ma xiim man maquillé bi ma ne ma koy def sax mënuma ko def kenn dam kenn mënta maquillé wu ci lii <laughs> askan wi xam bonta bañ boppam yéen waa askan wi yëpp yéenay tëdd gune wala lan loolu laa leen laaj ci tey ndax yéen waa askan wi yëpp yéenay tëdd gune walla lan parce que faalewu leen tëdd gune gi ndax xadiwut leen de moom ndax xadi moom defut leen ko lu tax ndax xadiwut leen nag mooy wax ji why you think this is normal people putting their hand on children sexually abusing them how is that normal to you how you not doing nothing about it how you not talking about it how you not even no one is even allowed to talk about it su ngeen taxee ba may wax ni ngeen mel si àngale barki salaatu faatiha dootu leen jarati dara xaddina juróom-ñaar yéen Gambie Sénégal xam nga xaddi yëpp maa ngi forcé ne mukk duma wax si àngale ngeen di ma buli di ma saaga ndey di lonk suma ay doom di lonk suma ndey du ne ngeen di ma ko def ngir maa ngi wax seen feebar bi ma ne mukk duma wax si àngale ndig rus koo wax si àngale sax su may wax bay jooyit ma rus koo wax si àngale te su ma ko doon wax si àngale dugul ne rek xaduna si yëpp fay xam ni ngeen mel bon xaduna si yëpp support nañ ma nu ko noon te yeneen dëkk yi mel ni yéen te feebar yeneen dëkki Afrique yi sax nu ko noon danañ fay joxaale ci ko noon support nañ ma te ma te déglu ma te du ma boole du si jëlee ay saagandee comme ni ngeen may def nu ko noon romb naa fii nu ko noon si télé yi ngeen may seen ak àddina si international àddina si waaye man xaalis taxul ma di wax ak féem ñun ñu faju moo tax may wax barki salaatu ya su fekkee ñun ñu faju taxut may wax yàlla mboole nu ma bugg ci àdduna lu baax bu ma ko xam ñun ñu faju moo tax may wax lii gàcce la pour nga wax ko sax man damay wax li ñu dal di jooy ku bugg a dund loolu ay xat te soo jooyee ba pare ngay dem toog yow kenn doo xam ku la dimbale doo xam ku la fóon doo am ku la lëng doo am ku la dimbale ba pare ñu record sa jooy yi sax di la buli si loolu di la gën a dabul buli di sa pénn ku bugg a dund sa noon yi di kontaan bot saa wu ma xalaatee gune yii du ma bàyyi di wax saa wu ma xalaatee gune yi te xool ne faa seen yoon newu ci faalewu leen gune yi du ngeen wax su fekkoon ne man may noppi bi ko yéen a ngi wax konoon ma noppi waaye yéen du ngeen wax du ngeen masa wax nit ku bugg gune su takkut gune yi dana làmbatu gune fa bugg gune fa feebar feebar yi bugg gune loolu xam na ci xeet bu ne waaye ñun lu tax mu bari si ñun rampañ ba ustaas yi lay jàngal di la ñemoo ñemee tëddoo tëddoo la lu mat juróomi xat tëddoo lu lu jege ñeen fukki gune ci dëkk bu xem ni Touba ni ña di fa dem di jaamu yàlla ku dox xajit boo xegsee Touba nga war a des sa bopp nit gannaaw bu nit ñi ñëwee di jaamu yàlla ñu naan mu ana sa dindi sa sa xef dindi sa këpp bi muural sa cër yi ba pare nag mais ni dëkk boobu dëkk bu baax la ba pare nag ustaas ya fa ne nag di tëddoo gune yi nag te waa Touba ne yereŋ nag ñoom duñ ko wax te keneen du ko wax nag far boole si duut ne rek ñoom duñ ko wax de keneen sax du ko wax ca Touba mel moom ba tey Touba gune yañ tëddoo noonu su fa nguur ga demut lijjanti gune yooyu film ko dimbale gune yooyu jox leen xaalis wax nit ñi àdduna si dégg ko ne lii dootul xamati te danañ si def dara fee nguur gi deful loolu but bu yàlla sàkk danaa continuer kaa Touba boobu duma ko mas a fàtte ku ko fàtte yow mbër nga xawma ko fàttee kaa Touba boobu waa Sénégal tout waroon a jóg di ci wax waa gàmbi sax surtout ustaas yi tout waroon a réunion ànd di ci wax commencé ne fi mu ne nii ñun def nañ suñ suñ organisation boo xam ne képp ku fi tëddatoo gune ku tëddatee gune gooy jàngal nangam ak nangam mooy sarti te Jamra waroon a jiitu ci loolu nag waaye Jamra mën naa ne layi ne lu tax Maam Njaay di fecc génnee génnee becco ne layi di jëf-jëfi si loolu Jamra mën na loolu <clears throat> ne layi ci yu ñàkk day jëf-jëfi waaye Jamra gune yuñ ustaas bu tëddoo ay gune Jamra ne yereñ ni jiw xorom ci lool xaw ndaw Jamra naa fekk walla yéen yéen a bonta bàjjo képp ku taxaw naan ma bul bul wax ci kaa bii danaa lonk paa bi ci boppam barki salaatu faatiya képp ku wax ne bul wax ci kaa bi kii kilifa la nangam ak nangam ma lonk paa bi ci boppam maa ngi jàpp si yàlla di waxtaan lonkuma paa bi xàngale sama kuuru sa wax yeneen nit ñi dégg nañ ma moo tax ma ne ci xolof yi rek xat yi yëpp su ma doon wax xàngale xaduna si yëpp xam nañ ma soppoon ma romb naa fii bu yàgg di konoon ci télé yeeg place yi ngeen may seen waaye maa rus sax di wax li suñu askan wi ni mel ni ci xàngale waaye da ngeen ma forcer ma tàmbali di ko si xàngale te nga suma tàmbalee di ko wax si xàngale da ko réccu dootu leen jarati dara si àddina si yéen Gambie ak seen bugg gune geeg seen mbon gi bu ko àddina si xamee surtout Sénégal bu àddina si xamee seen bugg gune geeg seen mbon gi ma tegal ko àddina si yëpp si taabal bi one by one xam ngeen ni ma man ci expliquer billaahi dootu leen jarati dara te du ngeen ngeen faju te du ngeen ne kenn du wax ci lii te yéen du ngeen ci wax da xam ne seen doom yi màgg nañ walla te gis ngeen gune yi ngeen di tëddoo fi mu ne nii nag bu gune yi màggee ñoo may raw téeméeri junni yoon fi mu ne nii balaa ñu wax juróomi at ci kanam man bu ma deexoon it gune yi danañ jóg def loo xam ne si seen feebar bi gune yi danañ ci xare-xare boo xam ne ak yéen xaddina si danañ ko xam bu ma deexoon fi mu ne nii man am yéen gune askan bi danañ jóg di wax lu raw ni may waxee nii wax ko ci hàngale français xaddina si yëpp xam ni ngeen mel barke salaatu faatiya mboolem kuy tëddoo gune fi mu ne nii tabaxu ko boroom mooy ennemi askan bi te kooka ngeen war a attaque du man nit ñi nga xam ne love you too see you nit ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo bëgg gune te ne ci askan bii ñooy ennemi askan bi muy askani Gambie senegal Sénégal wala askan wu borom nekk fu ne gune ga fay màgg wax ko naqat wam koy def fa koy bañal yeneen moroomam te xam ne rek lii jaaduwul te yéen su ngeen tegee gune ga naqar ba pare maa ngi leen di fàttali ngeen koy ñaawal ne ko nangam moo la dal moo tax nga dof moo tax lii dal la di ko dabulal naqar wa nag gune ga war a noppi yow di la sutura ci loolu xoolal ndax loolu jaadu na te gune ga gis la waxoo ci dara keneen ku ciy wax nga di ko xeex xam ngeen lu tax nit ñi bëgg gune ñii ba tey ñu ngi tëdd gune fi mu ne nii ni may waxee yow nii xam na kuy tëdd gune gu mu war a tëdd xam nga lu ko wax lu ko waral ñun mag ñu feebar ñi nga xam ne buñ ñu tëddooxee ba pare ñu mag ne patt mais ni ñu witu di jaay xam suturaak te fekk xaaju ñoo xam sutura nag yéen li ngeen man ci jëw ak weer nit moos yéen waa askan bi rek seen whatsapp yi bu doon wax ak kermango yi bu doon wax yéen waaye suñ waree wax lu am fayda lu ñuy dimbale ngeen mel ni ñu ñuy waaj a jaale nag ne patt suñ waxee ngeen naan sutura nit fay sutura nit nit fay sutura boppam soo waxee te sutura ñu di la xas xam nga lu tax boo waxee ñu di la xas benn benn la ñuy gis mu génn wax suma maas yi génn wax moo tax ñu di la bu ñëpp génnoon wax danay mën a xas ñëpp kenn ku ne génn wax la la la dal ak lu tax mu war a dakk buñ gisee ngay weer nit ñi benn nuy nit ñaar ñett ñett ñu weer ko rek ñëpp ko koy def ku ne ba te xam ne ah man de danañ ma weer maa ci tegu ci xaaral ma def sama bopp nit waaye gisuñ nga weer kenn képp koo xam ne bu gisee nga weer kuy tëdd ak gune mu ne la bu ko weer surtout buy góor la wala jigéen lu ci bëri fa tëdd ak gune moom ba pare laaj ko expert yi ñoo ko wax moo tax muy wax bañ bañ yow gune ga nga xam ne moom fa tëdd ak moom fay bañ gune googu jóg weer ko moom it moo tax borom di ko xaaye fa ko def askan bi am na jigéen ñi koy def jigéen ñi koy def ñu bari góor ñee leen ko def loolu kuñ ko def buy fukk la juróom-ñetti yëpp danañ ko def nit expert yee ko wax man ami rek maa bokk si ñi nga ne ba ma déggee gune takk nañ ma te man maa jege gune man xam na nit ñoo xam ne mas a jege gune man ami bu dee mas a mas naa jege gune man yàlla bu ma génnatee ci néeg bi camion ba gën a gaaw na ma na ma xenu yàlla lu ma bugg bu ma ko xam suma doom sax lu mu bugg bu mu ko mas xam ci àddina lu may defee gune waaye nit ñi bugg gune fañ feebar te bon te soxot te néeg te ay doon kee ñu def la ko yow nit luñ la def te baaxul ngaa war a xeex pour loolu dakk surtout lu métti lu bon dëgg lu la dal ngaa war a xeex pour loolu dakk waaye doo ko def ñeneen yow jos pour yow loolu daal na la métit bi keneen fa ko war a dund wala jos bi ko yow loolu dal na la nit ñi ne pat nga koy def keneen parce que askan yi fay soxot def nañ la ko pare ne pat léegi moo tax nga xéene loolu keneen dund ko métit bi ngay muñaale keneen muñ ko tàppote leen vidéo bi te séddoo ko su ma commencé di wax si hàngale ndax su may wax si xolof du ngeen tàppote du ngeen séddoo du ngeen ma faale def ma xaj di report suma vidéo bi di ma xeex te suma xeex bi seen baay la mënu leen ci dara ndax yéen yéen ñëpp war a jóg di wax li may wax ni ak lu ko raw muy président yeeg imaam yeeg ñëpp ku may xeex ku ne suma xàqalee dal ak xàqi askan bi may dimbale mënoo maa xeex sa bàyyi laa li ma dund boo ko dundoon yàq nga askan bi bu yàgg lu ko raw yaa ngi taxaw fi di saagandee ndey ba bu set di juutoo kam mandee ka xalak askan bi man ma dund ko ba pare taxaw takk suma ndigg nag di xaree askan bi ne mukk danañ ba def seen bopp nit kon sa bàyyi laa yow mi may xeex koo koo manti da ku ne su ma xàqa lay dal ak xàqi askan bi waa mënoo maa xeex su ngeen taxee ba may wax àngale da ngeen ko réccu du ngeen jarati dara si àddina si surtout yéen Sénégal ak Gambie su àddina si xamee ni ngeen mel illaahi wallaahi tallaahi da ngeen ko réccu te seen doom yi nekk fii te dégg àngale français yëpp danañ jóg di wax ñoom it ma motiver leen ñuy wax àdduna si yëpp du ngeen jarati dara visa sax du ngeen ko xamati kenn dootu leen faale du ngeen a mën a féeg ak ak di jaay baax ci kaw di te si ron yéen na ngi nëb ni dàmbaak màngo guñ jaale waa acca leen bu leen def seen bopp nit rek te faju te bu leen def seen bopp nit teñ wax liñ war a wax ba ma tàmbali di wax si hàngale da ngeen ko gis du wax naa leen ko xat yi yëpp faalewu leen ma ni leen su ma tàmbalee di wax si hàngale da ngeen ko riccu te àdduna si yëpp danañ xam li ngeen doon te nit ñi danañ ko déglu danañ ko soppoot maa nga xamee te danaa ubbi beneen page bu xees xam naa tur bi ma ko war a jox yépp di fa wax ni ngeen mel waa askan bi sutu Gambie ak ak Afrique ku mel noonu tout faju ak yeneen nit ñi mel noonu tout faju xaale di ko tegal one by one di teg one by one surtout seen buggu gune geeg seen caga gi yéen ñu bari ngeen mel ko ba tax kenn du ko wax su dee yen ñu bëri mel leen ko lu tax ku koy wax ngeen mer ku koy wax ngeen mel sutu man number one reason lu tax ngeen bañ ma mooy li may wax seen bugg gune gi ak seen toroxal jigéen gi ñaar yooyu ngeen ma bañee number one seen bugg gune gi ak seen mën a toroxal jigéen gi te yéen ñu bari ngeen mel ko buy fukk ngeen yéen juróom-ñaar yëpp nii ngeen mel mbala juróom-ñett ku ci buggut gune mën naa toroxal jigéen ci juróom-ñett yi yëpp loolu mooy dëgg gi askan bi boo ko calculer surtout góor ñi nga génnee leen fukk yi buy fukk la juróom-ñett yi yëpp mas nañoo làmbatu gune mbala jéem koo ruuxlu wala tëdd ak moom wala jéem koo juróo jos def nii wala def dara loo xam ne waruñu ko ko def wala teg gu ne gis kawam wala dara ba pare also mas nañoo toroxal jigéen mbala ñu def ci ñaar yooyu benn ci juróom-ñett yi yëpp buy fukk la ñaar yi rek a innocent juróom-ñett yi toroxal nañ jigéen mbala ñu làmbatu gune mbala ñu xemem gune mbala ñu bugg a làmbatu gune wala teg gune seen kaw wala def dara daal ba pare toroxal nañ jigéen boole si mbala ñaar yooyu def nañ ci benn yéen laay laay fi ne ngeen wax bu dee may fen kuy wax na wax ak bàmmeelam nag surtout booy jigéen xam nga askan bi booy jigéen booy góor xam nga askan bi wax leen bu dee may fen askan bi góor ñi askanu Gambie Sénégal góor ñi buy fukk la ñaari rek innocent ci toroxal jigéen wala ci bugg gune ñaar yee ci innocent ku ko weddi ku ne fay fen bu dee précédent bi moo ko weddi fi mu ne nii sa précédent ba fay fen tàppate leen vidéo bi rek te seddoo ko gi nga xàqi gune ak jigéen moo xalak askan bi wax naa leen ko gëmu leen ma xàqi gune ak jigéen moo tax fu nit wi ci ñu jam ko paaka agressé ko moo tax askan bi xóoratut sa bitik sax boo ko xamee doo nelaw sa oto boo ko xamee doo nelaw néegu baax boo ko xamee doo nelaw ba pare askan bi jaxasoo te fay gën a jaxasoo nag ndax xàq gune yeeg jigéen te tam ngeen di mukk du ngeen ko farataal wax ci te keneen du ko farataal wax ci ñoom nañ noppi te dee rek yéen ngeen continuer di laalante di lekk ceeb rek di laalante di lekk ceeb rek ñoom ñu noppi te dee xàq googu moo leen di dal yéen fu ngeen manti ne xàq nga fekk leen fa moo tax du ngeen xam hôpital bu baax du ngeen xam nguur gu baax sëy bu baax sa problème la ba pare coono boobu noonu traumatise boobu noonu ñooñ di def jikko yi bon yi mu leen di def loo jikko yooyu fa ñu dem ba wàllu ko sa doom yi yow ak sa doom yi mbokk yi yow waaye because wéeroo sa yoon néew si ngaa fàtte ne ñooñu si askan bi lañ nekk suñ xamul jàmm yow doo xam jàmm seen jikko yi su baaxee su bonee fay ñëw ci yow ak sa doom yeeg sa doom yi mbokk yeeg you know yeneen nit ñi ngay ñi ngay jéem a protect fii ne ñooy sa famille ñële nañ dee ñoo koy yëg ñooñ bu ñuy dee ñii fa ñuy ñëw ba xam ci deegee problème bi ñii bu ñu xal ko fa ñuy ñëw agressé ñii ñii bu ñuy mandi fa ñuy ñëw jàngal ñii màndi ñii bu ñuy tuxtaay fa ñuy ñëw jàngal ko ñii ñii bu ñu xamul jàmm ñii duñu xam jàmm bu dee caga lañ bu ñuy defee caga fa ñuy ñëw di xéeg ñii ñii di leen xéeg fa feebar bu ñu xam danañ ko wàll ñii problème bu ne ci ñii dana ñëw ci ñii do you understand because may wax ak yéen mel ni gune goo xam ñaari xat ngeen because ngeen di meen ni wéru leen moo tax may explain yépp benn par benn ni yéen nu ngeen foogee ne askan bi man ngeen a xam groupe ak nit goo xam ne lu leen neex def na ñooy sotop ba pare yeneen nit ñi seen sa doom la sa jabar la sa nàngam la sa yaay la sa mag la nga làq leen ñu séef ñii duñ ñii buñ séeful fa ñuy jël paaka agressé ñii fa ñuy def lu bon lu ñuy def lu ne ñii danañ ci dugg bu ñuy jaay taay bu ñuy tux yàmba bu ñuy nekk góor jigéena mbooleen mbooleem coono bi nga leen teg yow coono bu mu leen indi coono boobu dana ñëw ci ñii xaw ma lu bu ma jaaxal loo foogee ne yow doo mën a bokk ci problème yi askan bi just because yow eh, eh I'm gonna be here ñaataam one million bi nekk nii suñu askan baa ngi tëddoo gune ba tey di toroxal jigéen ak gune ba tey ngeen toroxal jigéen ak gune ba tax jigéen ñu bëri ëlbatiku léegi di leen toroxal baat ko fay sonn ngeen di takk jigéen ñi di leen jàmbu ngeen di takk jigéen ñi fekk jigéen ñi bugguñ leen di xaalis yéen di yëpp seen toroxal jigéen bee ko waral ba jigéen ñi fippu ñoom it di leen toroxal baat gannaaw ku muñ gannaaw yéen toroxal mi moom muñ rek ngeen si xam du ngeen ci def dara muñ rek ba dee jël keneen toroxal muñ ba dee jël keneen toroxal muñ ba dee léegi jigéen ñi fañ dem ba xam ne ok ñun fa mel ni ñun wéruñ moo tax ñuy yem ñu xaaral ñun tam ñu wan leen ne mën nañoo toroxal ñun tam moo waral jigéen ñi léegi di sëy ak yéen ca ca te bëgguñ leen jigéen ñi léegi di leen jàmbu aka di jos you know def yu nekk ku bon ba pare bugg a yàq seen doom yi di réveil ak a yàq seen sëy yéeg you know just comme yeneen jigéen ñi day nekkal jëkkëri jàmbur yi kool ji jabar ji xuloo defante dem sëriñ yu kenn xamul tas sëy jàmbur <clears throat> xame jikko ju bon jàngal ko yeneen doomi jàmbur yi ak yeneen jigéen ñi just like ñun ñëpp dañ leen yàqu I don't care loolu yëpp xam nga lu ko waral jigéen ñi ngeen di toroxal ba pare ne kenn du wax jigéen ñi xool xool xool xool ba màggat di muñ di muñ di muñ ba màggat ngeen jël beneen jigéen def ko noonu war a muñ ba màggat beneen jigéen ngeen def ko noonu gune góor tam di séen góor ñi ngeen di jël di leen tëddoo di leen dóor di leen toroxal di leen tocco di toroxal seen ndey yeeg ne ngeen di ko def gune yooyu noonu war a muñ su gune yi magee moo tax gune yi suñu xamee jikko ju bon sa doom yi la ñuy ñëw di tëddoo sa doom yi di yi def suñ nekkul gune gune sax you know suñ xamee ñaar fukki at sax you know ñu di leen juutal di leen jëndal këpp di leen juutal di leen may xaalis di leen def caga ñoo ko tay fañ soxot xam nañ ne bu seen doom la du leen newaay bu ko fañ la mere xam nga yéen wéru leen yéen askan bi mun leen a understand ne problème am yëpp si bi ko sof ñàkk respect jigéen ak gune moo ko waral waaye wéru leen moo tax xat yëpp ma di leen wax genn kàddu gi ngeen foog ne man lu ma dund moo tax yéen yéen a wéra di ka bon yéen lu ngeen di foo ko si man lu ma dund su ko dundoon su ma ko dundutoon sax li ma leen di wax is the reality ngeen sant yàlla ma dund ko gëstu ko gëstu problème bi ñaata xat ba xam fu mu jógee ngir mën naa am lu ma ko a tax ma xam time boobu di ko gëstu ñaata xat ñëw di leen wax dëgg gi instead of ma def ni yeneen xaj yi dundu métti di def xaar ku ñëw di xalaat sa doom yi waaye yelloohoo loolu yelloohoo nag ku dund dara si askan bi lu mu war a dund te lijjanti dara lii lu ko waral ak dara lii coono bi mu def askan bi ak li tax nit ñi war koo ba mu lijjanti ko jàpp si yàlla buy jooy sax ñëw taxaw di la ko wax yelloo ko loolu parce que salaatu faatiha yelloowu leen loolu ngeen a yelloo nit ñi dund métit ci askan bi te di leen defal vidéo yi xaj yu mel ni aadamu ak ñeneen ak ñeneen ak lu raw jigéen ñi def seen vidéo yi xaj yu yàq seen doomi lii ngeen yelloo ndax fa yi xam ne suñ taxawee di wax dëgg gi bay jooy ngeen di leen record di leen bule di kontaan di xeex xeex di leen xawee di presse ak dof moo tax nag ñu di la def luy jikkooy di presse ak dof dëgg te suñ koy defa ñuy ree di féeg ree di jàngal sa doom ci jikko yu bon di jàngal sa waa askan jikko yu bon yu dox xañ ba pare di ree ñooñu ñoo mën ak yow nga di leen jaay di leen tàccul bi ko wéru xola ni ngay def ñooñu rek xola rek ni ngay def ñooñ nga xool nag ñi ñi ngay def ñu lay wax dëgg boo xam ne moo baax si yow ak mooy sa feebari askan bu dul man sax nga xool ni ngay def ñooñu xam nga yenn nit ku ñuul danañ lay ku ñuul mooy ennemi boppam nga fa ne fa ñuy caaxaan neexut a dégg neexut a nangu waaye ñun ñooy suñu ennemi bopp ñun nit ku suñ programming bi suñ programming bi mooy suñ ennemi programming ngi toroxal jigéen ak gune gune gi góor wala jigéen a si toroxal jigéen ak gune muy toroxali duur toroxali làmbatu ak yeneen toroxal bot mel ni dóor ak làmbatu ba pare ne borom na noppi te yow doo dimbale borom su boroom noppee keneen ni du dimbale borom kuy promote loolu ku ne mooy ennemi askanam gis nga na bii nit ñi cagatu yëpp boo leen calculer nga seet seen background ak seen history bu dee danañ la wax dëgg ne nit ku ñuul ñu si bëri duñ la dëgg ya seen sutura seen bopp gi su feeg sutura bi ñuy def nii ya waaye bu dee beneen xeet la boo leen tegee laaj leen dëgg gi buy fukk la juróom-ñett yi yëpp fañ dund sexual abuse moo tax ñuy cagatu buy góor wala jigéen góor ñu caga ñi nga gis nii ñu xam jabar fu ne ñu cot-coti ñàkk xam seen valeur yi xawra yi moo tax ñàkk xam valeur yi xawra yi fu ñu ko jëlee mooy xawra yi bañ doxee gu ne kenn respecte ko nit ñi fañ jël advantage of xawra yi bañ doxee gu laaj laj jee ko def ci luñ ci war yàq gune gi daal xadunaam ak ak ak xawraam yi woon ko ne sa xawra yi du dara respecté ma ko moo tax ma di ko use di def lu ma war a def léegi nii lu ma war ta def lu ne gune googu su magee du mën a xam valeur yi xawraam ko war a jàng su ko jàngut fa koy ne di abuse continuer di ko abuse te su koy abuse fay yàq sa askan bi jàngal leen jikko yooyu ndax yéen ngi dégg li xam naa ne faalewu leen lii su ngeen sañoon maa ngi wax di saaga ndey su ngeen sañoon maa ngi wax di yab jigéen di yokk ci seen yab jigéen gi di saaga ndey su ngeen sañoon nit ñu bëri may wax comme yeneen nit ñi ngeen xalaat ci askan bi ni ñu leen di saaga ndey barki salaatu faatiha tanu konoon dangeen héegal vidéo bi di ko tàppate di ko bës di ko séddoo ba vidéo bi ni ko doon yegg na junni paa bi sax su ma defoon nataalam fii nu ko doon na vidéo bi yegg na ci kaw paa bi tëddoo bu ne génn ci corona affaire bi ni ngeen a soxot yéen ñu bëri loolu mooy dëgg gi lu tax ngeen soxot nag moom ngeen war a xool feebar bi leen dal ba tax ngeen mel nii moom lañ war a faj mooy feebari abuse bu may xeex dóor gune abuse gune toroxal yaay gune moo tax magi askan bi soxot bañ duggee gune lañ leen jàngal soxot googu di leen dóor dóor yu jéggi dayo di leen làmbatu di toroxal seen ndey yi di toroxal yeneen jigéen ñi ci askan bi rek gune gi màgg ci kër yooyu noonu gis ko jigéen ñi di torox di soq di wal di bojj di taycale di togg ba pare doo ko appsee def leen xaj ñu mel ni mbindaan bu dof rek ndax yéen a ngi dégg li may wax wala lan su dee dégguleen li may wax mën naa fay téléphone bi de néew ma di wax ak sama bopp man xam naa askan bi problème ba pare néew ma di wax pour man xanaa kay man maa ne ngéej ak li ma xam genn wàll gi yéen ngeen xam ko su ngee xamoon genn wàll gi rek te nangu ko because xam ngeen jom te pare pour def si dara lu konoon askan bi dana faju konoon man Amie right naa su ma deewoon askan bi dana continuer di wecceeku te tëddóor gune dana fi manqué dóor gune yu jéggi dayoo dana fi manqué toroxal jigéen toroxal yu bon yi def dana fi manqué su loolu manqué rek toroxal góor dana manqué jigéen ñu mag ñi toroxal góor dana manqué maanaam jigéen ñi mag ñi sa yeg yow te bëgguñ la wala jos you know yeneen stuff yi yeneen jigéen ñi def konoon yëpp dana manqué góor ñu góor ñi mag di toroxal jigéen wala xale wala toroxal askan bi dana manqué xale yi jamante paaka ñoomu neen aka mandeeka yàq seen bopp ñu dana manqué yëpp dana manqué lu konoon si ron la dee njëkk nëbee loolu moo dee continuer di jolli di dem si kaw di jolli di nëbal yeneen yi ci kaw yëpp fu jaar si ron fu muy nëbee ñu wax ko faj ko yeneen yi génn di dem di mag duñ xam nëb nëb boobu noonu su ko defee mën ngaa soo waxee fii faj fii ba tee du tere nga faj fii fii moom nga koy faj par exemple su nit génnee jam nit baaka yàlla tere dinañ ko jàpp yóbbu ko su nit di jaay dara wala def lu mu wattare danañ ko jàpp su nit di def yenn yi danañ ko jàpp you mooy si kaw you know waaye léegi lu waral si kaw moom ngay xool fii du tere ne danga wax si kaw si kaw mënoo ko wax ba mu dakk ki xas ba xaal ko ba ñëw ci kaw di def lu mu war ta def moo la gën a xam ne ni mu def waru koo def man ngaa wax bon lu si bëri wax du tax mu wecc xanaa fa lay def ennemi yow te gën a continuer ni muy defee nit buy def jikko ju bon nga wax ko lu ci bëri du tax mu wecc fay wecc nu mu koy defee su fekkee moom parewut a wecc fay wecc nu mu koy defee ba du ko gisaat waaye du ko ba di def yi bon yenn yi ba pare te bakku façon loolu yombul te nit ku wig du ko def tàppote leen vidéo bi séddoo ko rek wala ma dagg vidéo bu dee ngeen di nelaw néew ma di wax pour man kenn de honestly néew ma di wax pour man kenn su doon man kenn ne si askan bi du ma wax su doon sama mbokk yi kese moo fi duma wax yeneen mbokki nit ñee fi ne ñu askan bi ay nit lañ képp kuy wax ne lii duma dal duma si wax wéroo jigéen jooj bu yàggul ñu fi ñu fekk doom ji jigéen ji si biir néeg bi muy nelaw ñu jam ko paaka gune gu xam ñaar fukki at jos bi ko borom fa ko bugg takk mu bañ jigéen jooy fa wax ne moom fa daan dégg lool ci télé yi xamutoon ne dana ko dal bañ ko interview yaay ji fa wax ne fa daan dégg lool ci ne dana ko dal te yaay jooy xóor na ma ne ba tey gëmul lool ne doomam ji loolu dund na ko dafa ko bett bett boo xam ne nit sa nit bu bu demee te dem bi bett la yenn bett yi fay yàgg balam koo gëm yenn danay mat xat ñaari xat bala ngaa gëm ne dëggantaan diw na gi nga askan bii ku foog ne li tax may wax man loolu du la dal yow wéeroo mbala lim la dal yow mbala lim dal ku la jege loolu sa yoon néew si wéeroo ngaa dabul soxot ba raw ñi koy def te wéeroo askan bii dara gën a xam fayda wér gu yaram askan bu mante doo bu ne wér gu yaram ak safety ak nit ñi def seen bopp nit xamul lu gën a xam fayda loolu xaalis gënu koo xam fayda jëkkër gënu ko xam fayda jabar doom oto dara gën ta xam fayda loolu without loolu nit ñi buñ xamee xaalis sax seefut askan bi léegi pour nga am fi xaalis sax sa life seefut surtout Afrique ndax may fen ngay gis kuy dem vacances si Afrique sax mu ngi mu ngi tiit mbax danaa ñitti si jàmm mbaa duñ ma rey mbaa duñ ma agressé mbaa lii ngay gis Afrique ku fa xam bitig wala mu xam oto wala mu kër du nelaw laaj ko nit ñi bu dee may fen loolu lum lay jëriñ xalal jox ne yaa ngi ko xam te nelaw sax mënoo ko ndik askan bu bon yaa ngi tiit anytime dara man na laa dal ba pare ñëpp bugg a am xalal nag bam jaral leen agressé nit jaral leen jaar ci yooni gannaaw booy dee sax te gannaaw boo ngar-ngaree ba xam xalal ji léegi doo nelaw guddi bi ko askan bi baaxul sa xalal ji lañuy ñuy ñëw topp si soo uytuwul ñu rey la gaañ la jos bi ko sa saxalal ji nga sonn ba xam ko duy understand ne askan bi léegi xóoru pour yow nga xam dara mobile sax nga téye ko xóoru duy understand ne bi léegi xóoru te su suy continuer di ko seetaan fay gën a nëb duy understand ne nit ñi bëgg gune sa doom ji génn dem jàngi ñëw sax xóoru sa doom ji even biir kër gi sax xóoru sa doomi mbokk sa doom biir kër gi sax wóorul ndax sa yoon néew si ma leen di laaj rek de ngir yàlla tontu leen ma su ma leen di laaj seen yoon néew si loolu bi ko nekku leen di ko wax ñun suñ problème yi nekku leen di ko wax nekku leen di ko kaa leen di ko wax nekku leen di ko wax mooy problème bi nekku leen di ko wax nekku leen di ko wax xam nga tax nekku leen di ko wax ku koy waxta boolewu ci yab jigéen di saaga ndey di toroxal jigéen ba pare ne fay faj askan bi te askan bi képp ku koy faj di toroxal jigéen di saaga ndey di promote saaga ndey saaga ndey i jox toroxal jigéen ñu noonu surtout jigéen ñu mag ñi ñi nga xam ne ñooñu nga war a respect ñooñu ngay toroxal mooy saaga ndey te sooy jàngal ni ñi toroxal jigéen ju mag te askan bii ñu ne fay respect yaay nga di leen jàngal yab yaay kon ñi ci ndaw nag ñi yab fañ leen di dabul yab képp kuy promote saaga ndey mooy ennemi askan bi moom tam yab jigéen gi moo waral problème booy wax bu ne ku ko xamut ku ko fa wérul nga ñëw di promote loolu ba pare nga ne dimbali askan bi at the same time ba nit ñi kuy waxta boole ci saaga ndey du ngeen faale waxam ji it's because ngeen a yab jigéen ba jigéen ñi sax yab seen bopp kuy wax ak ñoom te saagawut leen ndey duñ ko déglu jigéen ñi fañ meen yab gi ñu leen yab bañ nangu yab gi ba sorenda ba bugg yab gi ba loof ko xanaa xamoo ne fii ngay gis tubaab buñ tëj prison ba tijji ko mu def dara just pour delluwaat prison soo ko waxee mu ne la man buggumaa toog ci àddina si léegi minatuma ko parce que salaatu faatiha waaye nag ngay gis ni kuñ tijji mu kontaan def boppam nit pour bu mu delluwaat prison ñaari façon ngi nit ñooy dund luñu war a dund ki nga xam ne fa dem ba sorenda métit bi nangu ko ba loof ko ba masta nu muy dundee loolu ak ki nga xam ne moom métit bi du ko masa nangu bi ko bugg ko xam na ne moom yellawul loolu ñaari façon ngi ni ñoo ñooy dund luñu war a dund ki bugg boppam loof boppam li muy dund te war koo dund neexu ko bu dee moo koy def boppam sax neexu ko te saa mu xamee opportunité pour ba ko rek dana ko ba ak ki nga xam ne fa bañ boppam ba loof coono boobu ba soren la ci coono boobu bu dee moo koy def boppam bu dee keneen a ko koy def du bugg loolu dakk fa koy miin te sa yuur gi lu miin buy lu baax la buy lu bon la fay programme boppam like that sa système bi yëpp nangu loolu di operate like that surtout bu dee yow ku gëmul sa bopp nga sa système bi du mën a reject reject loolu because sa système bi xamut xamut lu koy protect mooy gëm boppam boobu gëm boppam bu su ko xamee moo koy moo koy protect di reject yeneen yi nga xam ne mu ngi koy def wala mu ngi koy bugg a def wala mu ñu ko koy def moom mooy xam ne man ñun yelloo nañ lu raw li yelloo nañ lu gëm lii you know di ko reject because que gëm boppam léegi sa système bi su xamul gëm boppam du mën a reject loolu foo koy nangu te su ko nangoo ba sorenda si rek das it bu dee moo koy def bu dee nit a ko koy def du nangu loolu génn fa ciy comfortable toog nu manti doon lu ne loolu moo dal waa askan bi waa askan bi fañ dem ba comforté wul ci mbon gi bon ak toroxtaane gi ñuy toroxal askan bi muy góor wala jigéen ñu bari dañ ci comforté wul kenn ku ne jàng noo koy jàng nooy maneuver through it kenn ku ne jàng yow nooy nooy nooy survive inside the pain you know you're like okay it's like this let's just leave it like that but let's just do this to survive you know moo tax kenn ku ne di wut lu bon lu muy def pour survive kenn ku ne di wut lu muy def bu loolu baaxul ci askan bi sax nag na survive rek waa léegi ñun ñëw suñ continuer di def loolu askan bi juróomi at ci kanam fu at ci kanam fu mu jëm ñaar fu at ci kanam fu mu jëm fekk gune yi màgg nañ ñu war a dund lool gune yu bari danañ gaañu dee tëddi kaso xam problème yàlla tere ko ñële di dorogu ñële di góor jigéen ñële di jigéen jigéen ñële di jamante ñële di màndi gune yi seen doom yi danañ dund toroxtaane gi abuse beeg yu bon yi lu bon li nga gis ni yëpp su boobaa dafay double triple lu bon foo ko manti fekk ci askan juróomi at ci kanam fukki at ci kanam fay double tu si nit ñi deful dara muy askan bu manti ne fay double nit ña fañ koy miin lu bon loolu di ci di ko continuer di ko def muy gën a dabul ñu ci duggutoon dugg ci surtout ñu suñu askan bi nit kuy def lu bon fay soxot fay bugg ñëpp def ko soo ñëwee mu won la loof smile fake fii sax smile ree jël la maanaam dugal la si boppam daal nga mën a dugg ci nu muy def borom fay soxot fay bugg moom ni muy mel ni muy dund te waru koo dund buy cigarette lay tux sax fay meg ne danga ko tux moo tax mu nekk very nice si yow fake nice aka di ko def sa kanam aka di nice si yow pour mu xëcc la ci boppam seetlu ko rek <clears throat> foo fekk nit kuy def lu mu war a def seetlu li ma la wax nii foo fekk nit kuy def lu mu war def lu ci bëri hmm? fay wut keneen kum koy def keneen kum koy jàngal te su koy jàngal ko fay kaf di ree def koog maanaam xaritam def koog maanaam fa ko bugg jéem a xam attention yi koog daal jéem a compliment koog maanaam ne ko yaa ngi look nice wala nanga just smile jëndal ko dara wala nangam you know just nekk nice si yow you know xalaat ko rek léegi su nekkee nice si yow fooy defloo pour mu jënd la su ko defee nga xóolu ko nekki ku baax la su ko defee nga jege ko nga sorenda si moom su ko defee mu wàll la feebaram bi feebar bi nag ñaari façon lay doon mën naa xam moom fa xam lu la bugg a def mbala moom fa bugg nga jàng moom ni mu mel ñaari yooyu lay doon seetlu ko rek xarit ak nit nit si boppam nit ku baax bu fekkee mu ngi def jikko ju wata de sax hmm? du ko jàngal keneen fu koy rus fu koy nëbb comme dee ba tey loolu baaxul bot ba tey xéeniwul keneen di dund loolu so boroom du dem di làmbatu gune comme comme you euh, góor gi euh, Coreen affaire bi génn ni Sénégal def wala yeneen nit ñi làmbatu gune déedéet waaye bi ko feebaram bi su xamee ne su xamee ne xam na feebar yi bugg gune sax du ko def geneen gune dafay bañ gune goo xam feebar boobu mu wàll ko ko su ko defee gune gi continuer moom bi di ko def yeneen gune du def loolu fay respect gune googu te feebaram boobu du ko wax xaritam du ko du ko indi indi si xaritam du ko won xaritam du ko woon beneen nit daal maanaam du ko wàll beneen nit daal keroog rek laa doon seetaan benn tubaab bu ñu interview mu ne moom fa bugg gune nit ñi ne ko xay yow yaa bon mu ne leen a ah, man de su ma dëgg rek laay wax bugg naa gune waaye mosuma tëdd ñu ne ko ah mu su ma gisee gune nii ma koy xemem waaye mosuma tëdd gune xaw ma na ndax wax na dëggam déet waaye loolu la wax mu ne ma tëdd gune waaye su gisee gune fa koy xemem ñu ne ko oh my god yow lu tax ngay xeme gune muy wax ay yu kenn xamul xaw ma lan I don't know just gune fa ma neex you know nangam nangam di wax waxi kaya daal waaye mu ne moom mosut a tëdd gune waaye daf dee xool gune nii xeme ko waaye mosu koo def man naa xam dana ko mas a def xaw ma ndax mas na koo defam déet waaye wax na ko for exemple xam na nit ñoo xam suñ xamee benn feebar pour bugg a def dara lu bon duñ koy mas a def seytaane moo leen di topp seen yuur gi waaye dañ war a nekk di tudd yàlla wala jéem a xeex loolu mu génn seen yuur gi bot duñ ko mës a def daal mu xam ñoo xam ne suñ ko defee it ko continuer di def dañ koy rëccu tuub def seen bopp nit ku baax mu ñoo xam ne suñ ko defee dafa des lan la buy tux cigarette la sax nga xam ne fa ñu xam ne li baaxul suma dënn bi tux naa ko waaye duma xiine keneen tux ko kon nag duma ko tux ci kanam nit parce que nit ñi suñu ma gisee man nañ ko def xam nga lu ma lay waxaan ni moo tax xam naa yàlla wax si alxuraan bi ne nit suy def lu bon foo war a sutura boppam su fekkee ne mu ngi koy def mënu koo ba because su ko guy génnee expose ko fay xam dabul bàkkaar te yow even soo exposé keneen ki lu bon lu muy def ngay xam dabul bàkkaar waaye nag ba tey di same time tamit yàlla wax na ne soo gisee kuy def lu bon nga see war a wax xeex ko mu dëñ boo ko mënta xeex nga wax mu dëñ so it's complicated but xam naa lu tax mu ne bu ko expose ku nekk xam na ne internet bi expose yu bon ak télé yeeg na si nit ñi expose yu bon soo waxee ñu ne human right is my life moo tax àdduna si yàqu xam nga loo ko ne xam na expose lu bon looy def di ko ndamoo wala di ko woyee kenn matut ngay yàq askan boobu ak nit ñi koy seetaan buy fukk la ñaari buug danañ la toppandoor bala ñoo dee gis nga ñun suñ askan bi fa daw yaram waaye man maa ngi ñaan rek bu ma bu ma gedd askan bi comme ni ko ni ñi def loolu laay ñaan suba su ma xëyee bu ma gedd askan bi comme ni ko nit ñi def maanaam gedd ba ko ne ñoo koy yëg mel ni yow bokkoo si lu leen dal baax na lu dal sa mbokk baax na lu dal keneen baax na dem wuti yeneen xarit sax bi jógee beneen dëkk uti beneen jëkkër bu jógee beneen dëkk just all together gedd askan bi xam na nit ñu bari ñuy dund loolu fii ay Gambien ay sénégalais waaye foog naa si Gambien di la ëppee waaye dañ koy def léegi ngay gis sénégalais di ko wax ay jigéen man suma xarit yëpp ay ñag lañ suma xarit yi yeneen xeet lañ may dugalante sénégalais yi la koy waxta loolu daw na yaram askan bu nëb ba nit ñi di ko daw di wuti beneen xeet buñ xam xarit beneen xeet buñ sëyal beneen xeet buñ dugalante bi ko askan bi dafa nëb te ba tey nëb bi nëb noonu kenn du ko wax kenn du si wax dara pour defar ko ku wax ñu ñëw attaque ko di ko xeex suma maas yi man moom man nañ man ngeen gën a yëpp man man na Gambien yi sax taxaw di ma defal ay live vidéo di ma xastaay yi te gis imaam bu taxaw ne ko xarafalu sa doom bu jigéen boo dee bu kenn ñëw sa dëj ba imaam la mu taxaw wax loolu Gambie fi mu nii right now léegi léegi nii may wax ak yow nii Gambien yu góor yi gis ko ne pat Gambien yu jigéen yi gis ko ne pat ba pare ñu ñëw ci man groupe boo di ma defal ay live vidéo ne man la ñuy xas ne man la ñuy bulee ma ndooyaan ne man la ñuy xas pour ma génn si internet bee ma ndooyaan te seen bàyyi sax mënumaa génne si internet bi anyway man saa ma doon bàyyi vidéo man lay neex ma bàyyi xam nga luy tax ma ba jigéeni askan bi nga xam ne ak ak gune yi nga xam ne ñoom ngay dimbale jigéen ak gune moo tax may wax miin li gune gi góor ak jigéen a seen ustaas bi tëddoo gune góor gi Sénégal kon dem naa ko xaw ma ustaas la xaw ma euh, kilifa góor nekk yëpp télé boobu <clears throat> kon dem naa ko góor ak jigéen kenn warta tëddoo gune kenn warta dóor gune dóoru jéggi dayo yu abuse nit kenn warta takk nit di ko toroxal muy góor wala jigéen bu jigéen ji warta sëy ak góor gi di ko toroxal góor gi warta sëy ak jigéen ji di ko toroxal xam nga loolu mooy meen yi may xeex plus ñu war a jàng gëm suñ bopp oytu yeneen yu bon yi ne ci àddina si lu baaxul si ñun yëpp ndax yàlla ñu mën nekk nit ki ñu soxla nit ki du ne boo magee te abuse suñ la ngay tëb rek xam xaduna déedéet man ngaa sa bopp ba ni ngay xamee xaduna mooy nga gëm sa bopp oytu yu bon yi ne ci àddina si yëpp focus xam yow yaay kan bu la xalal jaral yenn yi bu la yenn yi jaral yenn yi you moo tax ma si boole loolu tam ak nu ñu def ba am fan wu gudd wér gu yaram you know léegi man maay ennemi bi waaye léegi imaam bi taxaw ne ku xarafalu sa doom ju jigéen boo deexee bu kenn ñëw si dëj bi wax ko ci vidéo taxaw vidéo baa nga youtube gambee ni gis ko ne pat gambee ni góor yi ma doon xas di ma defal vidéo di ma xas noonu ba nga doxee gune nga sëy moo tax nga dof sëy nga nangami yoon fa mel ni gune gi tey imaam bi tëddoo nii gune gi màgg xaw ma imaam xaw ma gi Sénégal gune gi màgg nga naan ko ba nga doxee gune lañ la tëddoo moo tax nga dof how is that xaste si gune gi mënoo xas gune gi yow wéroo te yow sa baay sa fañ ko tëddoo waxuma la ak yow moo tax ngay ngay pro protect loolu yow tëddoo bi ngay promote di ko protect ni kii tëddoo gune kooku ngay protect di ko promote gune gi ngay wax ne ko yow waruma woon a xam ne fañ la tëddoo léegi bi ko xam naa ne fañ la tëddoo léegi ma lay naqadal dabul bu raw naqar bi nga xam loolu mooy ne mbooleem gune yi ñuy tëddoo na gune yooyu yëpp soto ta noppi mboolem nit ñi tëddoo gune yi na ñooñ continue di tëddoo gune yi gune yi continue sotob te sutura ñooñ su ko defee man bu ma ko leen ko képp kuy wax xasee nit kuñ tëddoo buñ doxee gune bu nga doxee gune ñu tëddoo la nga di ko xas ku ne yow sa bopp yaay promote loolu te kàddu gi nga hubbi wax ko noonu danga ci xam bakkaar bu bëri ak xàq gu bëri di ko kàddu góog fay tax ñu bari ñu war a génn wax ragal toogaat les marchés génn toog su ko defee nit ñi tëddoo gune yi continuer di tëddoo gune yi fekk gisuñ gune yi génn di wax duñ noppi loolu rek ay garab gi suñ gisee benn gune génn ñaar génn ñetti génn ñeent génn mag ñi sax génn ne man nangam dundoon naa ko ma ko dund diw sangam defoon naa dama nama nangam te lii dafa war a jeex si dëkk bi léegi tey ñoom ñëpp ñu ne ah nañ bàyyi gune yi suñ ko deful ñi fa ñuy génn weer ñu léegi internet xam na wax gune yi léegi xam nañ kàddu nañ bàyyi gune su ko defee ñu ba gune yi waaye su fekkee ne fa ñuy génne gune yi boo leen tëddooxee ñu wax ndax suñu waxee xaj yi yëpp ñoo di leen ko xasee te mënuñoo kàddu ñaari métit yooyu xamee métit tëddoo plus métit xaj boo xam ne yaa ko gën di la xas xaj buñ tëddoo sax fa la koy wax man Cheikh Cissé bu ma doon wax ne ma fañ la mayee ba nga doxee gune moo tax nga dof Cheikh Cissé gannaaw bu waxee loolu la ñëw ne moom ba mu doxee gune ustaasam fa doon juutal billahi yéenay jaam yéen yéen duwu leen sax nit waa askan bi yéen ñu bëri duwu leen sax nit you know te li tax nag duwu leen nit moom laay xeex tëddoo biñ leen tëddoo abuse biñ leen def def ko seen ndey yeeg ñu bëri ba tax seen yuur gi nëb ngeen soppaliku nit ngeen soppaliku ngeen nit ngeen waaye duwu leen nit bi ko sof seen soxot gi dootul dootul soxoti nit ya léegi loolu lañ war a xeex li tax yéen ngeen mel noonu loolu mooy ennemi bi liñ la def ba tax nga soxot loolu mooy ennemi askan bi duut ne man mi koy wax man maay sa ennemi man maa ñëw pour ñu def suñ bopp nit buñ wax ne rek dund nañ métti nañ yàq askan bi déedéet nañ jàpp si yàlla si biir métit boobu jàng yeneen yu baax indi ko di ko di ko def te sàmm gune yi ba buñ dund métit boobu loolu rek dee lay xeex loolu rek la de loolu rek dee la ma askan bi bañee nii you loolu rek la de métit biñ dund buñ ko kiréetal beneen gone nañ ko wax xeex ko mu dakk ba pare nañ jàpp yàlla ba tey def suñ bopp nit buñ nekk di mandee ka xaal kooka def xalak suñ bopp suñ waxee ñu ne fañ dund métit buñ nekk di promote xaal kare suñ waxee ñu ne fañ dund métit wala no one cares nañ jàpp si yàlla ba tey si biir métit bi te xam ne ba tey danañ mën a xam lu baax danañ mën a xam àdduna bu baax jàngal gune yi loolu te protect nag gune yi nag te wax ci métit bi nag ba gune yi sax buñ ko xam loolu de laa xeex loolu de la askan bi di xeexee ni métital gune gi askan bi loof di tëdd tëddoo gune yi di làmbatu gune yi ak a xarafal gune yi gune bu jigéen ak a dóor gune yi tàppate leen vidéo bi te seddoo ko bu leen ma baax ak suma noon yi saa may wax lu am fayda surtout current affaire yi fa ñuy jël vidéo bi di ko report démb si suba sax noonu lañ def yàlla ma dimbali ma gis tiktok bi tiktok bi xaaral ma toog sax tiktok bi suñ reporté vidéo bi balam koo dagg lu si bari fa lay won ne la vidéo bi dagg ko bala ma dagg ko report nañ ko soo ko daggee mën ngaa ñëwaat that's fine soo ko daggul ba TikTok dagg ko du nangu nga ñëwaat fa lay wax ne semaine bi yëpp doo ñëw <clears throat> ba ma dalee vidéo tey TikTok lu tax tëju suma page bi fa ma jaaxal lu tax tëju ko ndég report yu bari ndég li may xeex nii képp ku ma ku may seetaan te xam ma ku ne xam na li may xeex mooy gune yi bu leen nit ñi tëddoo góor walla jigéen gune yi bu leen nit ñi duur dóor yu jéggi dayoo leen di traumatise te gune yi buñ màggee nañ gëm seen bopp te sëy yu bon yi na dakk ñeent yi lay xeex ku ko di ko ne fay fen wala xamul li may xeex allo tàppate leen rek léegi ñeent yi may xeex xoolaan nag ndax ku jógee ci askan bi wala seen waa bu jógee fële sax su buggee askan bi ndax war naa bañ li ma xeex loolu xalaat ko ndax borom bu jógewul ci askan bi sax waaye su dee bëgg na ko ndax war naa bañ ni man bu ma xeex loolu moom laa leen di laaj maa war a fay itam fa tàng aadi du ma dégg gu ne school holiday la tapoté leen te seddoo vidéo yi wala ma dagg ko bu dee ngeen di nelaw <clears throat> ñëw ma di wax pour man de man xam naa askan bi feebaram ba pare te pare naa pour def si dara ñëw ma di wax pour man yéen yéen a ko war a xam te pare pour def si dara waaye man xam naa ko te pare naa pour def si dara moo tax ma di si def dara xat yi yëpp di def li ma man def dara si askan bi moo tax xaj yëpp di ma saaga ndey te néew ma di fayeeku ko dàquñ maa saaga gënuñ maa ñaaw làmmiñ ñun ñëpp doomi Sénégal ak Gambie lañ man maa xam ne saaga ndey bi manqué wuñ ko saaga ndey mooy yeb jigéen rek ñun manqué wuñ loolu <coughs> we are at work watching we can tap all right but still you can tap you can come on naka support the video still you can tap and share if you can log in then you definitely can tap or share <coughs> tàppoote leen ku wax ne fay liggéey moo tax bëggut a tàpp moo tax mënta tàpp fay fen mën naa tàpp wala si su mënta def loolu the whole time sax mën na koo def you know seddoo vidéo yi wala tàpp ko support vidéo yi borom mu ngi koy seetaan no mën a duggee ba gis ko mën na koo dimbalee vidéo yi you always looking good thank you gi nga askan bi seen buggu gune gii mag ñi ñooy gàddu xaq gi léegi mag ñu ko gis te duñ ci wax aadi aadi fa mel ni mooy dem noonu xamam daal tëj na buntu yi fa mel ni fa des fa dem si wan bi gi nga askan bi may ñëw dagg vidéo yi waaye dinaa ñëwaat si kanam fa xam war a def si kanam nii xamalu time daal ok yaa fa war a def ñaari waxtu bot damay teel a génn si bi dama war a nekk online ñaari waxtu bot teel a génn balaa ñaari waxtu préparé waaye danaa ñëwaat si kanam incha wala guddi danaa continuer di wax si lii you know maa ngi try bëgguma lonk góor gi nataalam góor gi tëddoo gune gi Sénégal gune gu xam fukki at ak ñett paa bu màggat boobu di liggéey ci tele bi di ko tëddoo mbokkam yi génn naan fañ koy weddi loolu du dëgg loolu xamut kii suñ baay la kii kilifa la liñ ko tuumaal nii ah waa baax na na leer de loolu mooy ban façon yi wax ñooñu waruñu woon a génn sax di wax mbokkam yi gis naa leen ñu génn di wax benn jigéen di wax si rajo interview bi ak yeneen nit jigéen ji naa suñ baay la soo bu ko duxee sa baay fay tëddoog ay gune moom du xam ne sa baay la wala faalewul loolu du protect boppam fay tëddoog ay gune wala tëddoog ak gune te ñoom ñu koy def ñu bëri duñ koy def benn gune ndax dañ yeb askan bi dañ xam ne askan bi ñoo wéru moo tax nit ñi te tëddoo gune si askan bi rey naaw xat buñ toll nii ñun lañ yeb